Salam alaikum, bonjour, bonsoir, merci de nous regarder sur la 2STV. Vous suivez votre émission 100% On est là pour parler de la musique. La musique sénégalaise va-t-elle bien Alors, kii nag mooy suñu jigéen di Daba Sey di artiste di nandaan li nga xam ne Sénégalais yëpp xam nañ ko Daba na nga def. DJ Rakhou maa ngi sant bu baax. maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar. kii nag moom kenn du ko présenté Sénégalais yi <laughs> te yaakaar naa 100% Galsen mi ngi koy commencé min tuuti <laughs> Idrissa Diop. waaw waaw mais salaamaaleykum di nuyu ñëpp vraiment di sargal waa Sénégal yëpp surtout nag di kontaan ci plateau bi quoi suma sister Daba ak suma guerrier yi toog la <laughs> ah say guerrier lañ quoi. <laughs> waaw Papis comment vas-tu tey nag moom j'ai deux Papis quoi. Papis bu ñuul ak bu xees. waaw va falloir euh, trouver benn épouse. Papis Ndiaye Papis Konaté alors <laughs> Papis Ndiaye comment vas-tu. je vais très bien. Euh, sant yàlla. kontaan nañu. jërëjëf merci. est-ce que c'est c'est une première c'est une première oui c'est une première. pour ah, moi Papis euh, yow bu ñu lay présenté lan lan nga bëgg ñu wax la exactement. Euh, je crois que soo ko basé ci liggéey bi. waaw boo ko basé ci fonction yi ñuy représenté rek. wax nga lépp mon frère waaw. Ah. voilà fonction bi cest à mooy. Euh, ñu lay seetaan xam nga man xam naa la yow. waaw mais ñu lay ñu ñuy seetaan xëy na ñu ngay lay doog ñu naan mais kii kan la. xëy na xam nga booy joué ak Wally Seck. Hmm. nit du ñu bàyyi xel ci musiciens yi xëy na dañuy bàyyi xel ci managers yi les beaux xam na hmm. ak ñi nga xam ne ñooy aw ñooy fecc xëy na gars yi ñoom ñoom lañ gën a xam que musiciens yore guitare yeeg affaire yooyu. waaw Papis Ndiaye clavier yi. artiste auteur compositeur. oui euh, chef d'orchestre Ramdan ah bu ah. Ah voilà mun nga ma présenter su boobaa euh, doomu réer. ah d'accord comme parfait très bien kii nag mooy Aziza di manager Wally Seck ak lan nga bëgg ñu yokk ci wala ça suffit. ça suffit ça suffit. voilà très bien <laughs> Aziza comment vas-tu. ça va très bien alors. en forme vous allez bien. oui très bien alhamdulilah alors Papis Konaté. Ben, sama jumeau. waaw sa encore bienvenue encore euh, merci ci invitation Rafa. Ah, toujours plaisir. waaye. Ouais. alors dañuy avancer rapidement aujourd'hui li ma bëgg ñu waxtaane mooy yéen seen xalaat musique sénégalaise bi. bi ñu doon dégg démb ak bi ñuy dégg tey lan mooy différence bi est-ce que c'est positif ou c'est négatif déjà. ah man man ngay. waaw bah écoute euh, époque yi ñoo différent ah époque yi ñoo parce que boo xoolee ñun suñu époque maa ngi koy wax léegi hors antenne. Mhm. dañu amoon on faisait. beaucoup de beaucoup d'autres choses. Euh, comme exactement ce qui se passe. Mhm. avec les jeunes d'aujourd'hui mhm. ils sont dañu nekk seen époque lu rek la mais euh, époque boobu on avait euh, je crois pas peut-être pas les mêmes armes. parce qu'aujourd'hui la technologie est là il y a, y a plein de choses et tout. Mhm. ñun amuñu ko woon mais amoon nañu leneen. ok c'était c'était beaucoup plus dañu amoon les trois P rek. Mhm. mooy li ma doon wax keroog rek mooy la pureté la passion et la patience. Mhm. surtout. Euh, aujourd'hui moi si j'ai un conseil à donner aux, mmh. aux jeunes mmh. c'est euh, ñu euh, jàng musique bi pare am connaissance bi mhm. jàng am am am xam bi quoi am lijaasa li ngay def parce que souvent mmh. euh, beaucoup de musiciens aujourd'hui époque bi dañuy def musique mais du ñu du ñu jàng. du ñu ñu gëstu loolu. et ça c'est important ñu jàng. Mm-hmm. am connaissance bi mm-hmm. euh, am lijaase bi c'est très très très important parce que et puis di déglu. Mm-hmm. aussi yeneen musique. nekk musicien. du tee nga déglu aussi. xam nga ñun suñu époque dañ daan déglu way beaucoup de musique beaucoup de musique. là maa ngi gis euh, euh, parce que je suis dans un projet ak ak ak Salif Salif Keita. au Mali. mais da ngay xool ne les Maliens dañu am dañu am kii boobu quoi dañu am euh, charge boobu dañu am échange boobu ils mélangent beaucoup de son beaucoup de ils écoutent beaucoup de musiciens mhm. euh, différents donc may euh, ma am benn pensée spéciale vraiment mhm. di ko Sénégal yëpp di jaale waa Sénégal yëpp Bruno Diatta mhm. Bruno Diatta bi fi bu yàggul il y a quelques jours. Mm-hmm. di ko jaale vraiment waa Sénégal di ko jaale l'état sénégalais. Mm-hmm. di ko jaale waa Sénégal yëpp man amoon naa mm-hmm. euh, foo xam ni jaar naa fa ak moom j'ai été l'un des euh, des des des des hommes je pense rares personnes yu nga xam ni mos na ma recevoir këram. Euh, Fann Résidence fële. ñu toog ñu waxtaan lu bari te li liñ ko daan dégg. Mhm. muy wax bariwul mais man. ci ñu ko dégg muy wax ñu waxtaan waxtaan yu sori. Mhm. booba époque bon voilà c'était. Euh, d'accord euh, les chefs d'État qui venaient ici ñu dénkoon ma projet boobu. ma invité woon Manu Dibango invité. Mhm. Euh, Mori Kanté invité euh, Papa Wemba. ndem si yàlla si ndeysaan ñu ñëw fii. à Dakar. C'était l'inauguration du, du monument, monument, de la Renaissance à l'époque. Il y avait tous les chefs d'État et je suis très très fier d'avoir fait sa connaissance Bruno Diatta. D'accord yàlla na ko yàlla xare àjjana quoi vraiment. alors damay ñëw ci Daba Seye mi nga xam ne moom moo fi jigéen euh, dama bëgg ñu tontu ci question yi mu gaaw rapidement c'est-à-dire démb amoon nañu musique sénégalaise. tey ñu ngi koy doxal ba léegi. Mm-hmm. lan mooy différence démb ak tey. ak est-ce que c'est positif ou c'est négatif mooy est-ce que ñu ngi avancer ndax lépp lu ñuy def rek dafa laaj évolution est-ce que am na avancement ci musique bi waaw raxu lu am solo laaj nag mhm. démb ak tey mhm. di woon démb mhm. mi ngi fi ba tey xam nga li bi bi am ci démb ak tey mooy woy dafa amoon démb ci actuellement nii gisatuñu woy ok <laughs> ñu ko fi dese boog mooy ñu ko doon def démb donc différence boobu moo am ci démb ak tey. d'accord nouvelle génération bi lan la ñuy def léegi. waaw ñu ngi musique ñu ngi musique waaw ñu ngi musique mhm. wax dëgg yàlla. Mhm. ñu ngi musique te tamit <laughs> fi ñu toll rek. Mhm. loolu la ñuy def. donc euh, li may wax rek tout le temps boo nekkee ci musique bi yow peut-être yaay gën a comprendre. ki ci nekkul. mais booy xool comme li tonton wax. démb. ñi fi nekkoon. ñoom dañu amoon nu ñu doon tëralee. nañ ko defoon passion. Mhm. ba pare nekk ci. Mhm. di ko doxal. Mhm. ñii nag tey dañu di gëstu. ñii nag tey évolué nañ ci musique. Euh, génération bi fi nekk. wax dëgg yàlla xale yi bëgg nañ leen. mais niveau bi waa niveau bi. mais li ëpp solo mooy. gëstu bi. dafa des euh, gëstu bi des na. dafa des très bien bu ñuy wax gëstu damay ñëw ci ñi nga xam ne ne ñoom ñooy les technicien mhm. parce que ku mel ni Papis Ndiaye ak Papis Konaté ñoom xale yi nga xam ne jamono jii ñoo yëngal dëkk bi ñoom bokk nañ ci ñi nga xam ne ne dañuy liggéey ak ñoom ils sont très proches d'eux alors damay tàmbali ci Papis Ndiaye mi nga xam ne ni moom mooy chef d'orchestre euh, Ramda. Mhm. ànd ak Wally Balago secte mu yàgg loolu ma fekkee démb. alors euh, Papis tey jii yow musique sénégalaise bi ko gisee. waaw man sama constat. Mhm. il va être euh, très très. Euh, bref bref. parce que soxlul compliqué. Ah. on a vécu mooy comme ni ko d'abord waxee démb. mun mhm. mhm. loo judd si dëkk dem ba am âge yi ñu am nii. nga ne li passé compté wu. donc dafa am fu ñuy toujours fu ñu war a taxaw pour waxee. dafa fu Sénégal nekkoon si côté culture. foo xam ne jamono ji euh, euh, grand du ma mën na ma éclairer. c'est-à-dire amoon na lu bari culturellement loo xam ne bii noonu la dëkk bi doon doxee. jamono yi boo seetloo euh, loolu yëpp amatul. Mhm. on maitrise on plus la création on maitrise plus nit ñi artistes yi daw actuellement nii amuñu influence. amuñu influence ñun ñi si tombé nii suñu génération mu difficile trop. Mhm. ñuy ñu ñu ñu war a liggéey ak suñu ay rak. Mhm. Euh, néew na moyen bu ñu am. par exemple man comme Papis je peux parler sur ce point à son nom. on a eu très tôt eu l'initiative d'avoir un studio pas pour commercialiser. mais pour faire vivre li ñuy def parce qu'un arrangeur bu gisatul un un artiste à arranger ça devient critique d'abord pour lui bu ñu toogee nag d'ici quelques années man euh, loo tax soo négativité positivité man pour man il est trop tôt de d'utiliser ces deux mots là voilà mais j'ai j'ai peur que euh, culturellement fi ñu nekkoon dans les années soixante-dix mhm. ba quatre-vingt mhm. nga xam ne Dakar recevoir na James Brown grand mhm. recevoir na de grands noms de la musique nga xam ne taxaw les Jackson xam ne dëkk bi am na loo xam ne bii mhm. mhm. amoon na échange culturel boo xam ne bii mhm. taxoon na ñu respecté ko aujourd'hui c'est ce qu'on donc euh, euh, man sama constat mooy tout de suite le volet est-ce que du valeur kon a wax fi encore valeur c'est très important valeur valeur la parce que tey jii nii euh, volet volet formation volet influence volet xam repère dëggantaan nous on a un terrible besoin d'aller aux sources pour ñun mën ñu mën a fair valoir nos talents surtout à travers le monde jamono ji nag dañ toll foo xam ne bi la musique elle encore un peu plus ouverte à cause d'internet ak les euh, les, les, mm-hmm. mais euh, ñun waruñoo àbbi musique fen parce que on a n région du Sénégal yoo xam ne yi fu ñu fa sëgg. Mhm. normalement bu ñu siggee war nañ ne ah mais ils sont ah ça c'est le Sénégal qui nous mm -hmm. et ma grosse peur aujourd'hui c'est c'est que simplement on risque d'être en retard euh, au rendez-vous culturel de toute l'Afrique parce que je vois d'autres pays se développer. absolument man j'ai vécu à Abidjan. Mm -hmm. j'ai fait euh, Bamako j'ai mm -hmm. fait mhm. le Ghana j'ai mhm. fait le Nigeria. j'ai fait le Bénin j'ai fait vrai, le Togo c'est vrai c'est vrai alors ils avancent. ils avancent. parce que j'étais là-bas dañ ma doon pointer comme étant un tiens le le Sénégalais là il va nous changer les choses. alors aujourd'hui bu ma demee di xool lecture par rapport production yi may dégg par rapport ak orientation bi yenn artistes yi dégg nga xam ne ñu ngi jéem a sax niiru ji leneen te je peux vous garantir que euh, musicalement xam naa ne on a les ressources nécessaires pour nous faire entendre partout en Afrique et partout dans le monde. Mhm. man loolooy sama constat il n'est pas trop tard parce que on a des jeunes qui en veulent comment il faut faire alors pour ñu mën a lancer loolu. voilà déjà euh, am euh, support moo euh, koy mooy profité di ko ñaan suñu gouvernement yi. Ah, appui am appui. suñu gouvernement yi nga xam ne ce sera pas à la musique di di dox. bi nga xam ne Dakar nga koy fekk. Mhm. mooy comme tu as tout à l'heure parce que je me désole toujours d'entendre parler de Wally alors qu'on est 15 millions de Sénégalais. c'est vrai je me désole toujours d'entendre un nom. Wally Pape Diouf on dirait qu'il y a de Sénégalais. c'est vrai alors 15 de euh, si si on veut compter sur deux personnes ou mhm. trois. Mhm. pour faire vivre culturellement un pays. defe naa dañuy fausser. alors que boo demoon Tamba tey ji Euh, au profit d'un concert il y a pas longtemps à Vélingara bu bu ma ak grand dans les coulisses gis naa talent yoo xam ne yi euh, tey jii si les si les moyens ak le mécanisme qu'il mm-hmm. fallait mm-hmm. dafa nekkoon ñooñ dañu doon fekk si Dakar fii léegi jël avion ñëpp accepté leen mm-hmm. et dommage ñun nag on peut pas mënuñu def liggéey bi yëpp ñi ñu jege j'avoue que influence bu ñuy appliquer si ñoom c'est faible par rapport ak euh, li ñuy gis à l'extérieur quand ils bu ñu rëccee suñu loxo yi ils sont vides te nag war nañu mën a faire bénéficier comme ni ñu grand yi defee lekk bi mm-hmm. war nañu mën a faire bénéficier mm-hmm. génération yi di ñëw mm-hmm. ñu profite aussi expérience boobu man c'est ça ma vision balaa muy trop tard très bien Papis yow loo ci yokk oui que euh, Papis wax na lépp euh, c'est vrai que gouvernement yi gungewuñu euh, artistes yi quoi culturellement parce que musique dafa laaj moyen bon moyen yi mooy moyen de studio moyen pour musiciens yi moyen de promotion mais xam nga tey un artiste tey bu defee tey ay moyen am dugal ko ci production c'est c'est très difficile pour que mu wane mhm. waxuma sax récupérer ah côté xaalis mhm. mais Daba par exemple c'est elle qui moom mooy produire ay albumam mhm. mais tey euh, ci yoon euh, je pense que ministère de la culture war nañ leen mën a jàppale ñi nga xam ne prouvé nañu mhm. wala ñi nga xam ne am nañu talent ñu ñëw accompagner leen euh, ci benn Papis wala benn Papis Ndiaye wala keneen Mm, laaj leen mhm. wala def concours seet les meilleurs talents et puis ñu jàppale leen produire leen mhm. mais bu leen produire aussi mhm. y a pas assez de plateau les télés ne suivent pas donc euh, li ñu privilégié boo xoolee ba xool politique bi la donc xam nga politique bi dafa ñëw dominer li nga xam ne musique bi te loolu yëpp xam nga bataille bu metti la ñii di génne seen production c'est juste rek dañuy génne seen production. pour maye ko pour exister sax pour exister. Mhm. donc xam nga problème boobu ça se se mhm. pose déjà. Mhm. donc euh, on revient toujours ci gouvernement bi dafa war a un peu accompagner les artistes. d'accord très bien alors Aziza di manager Wally Seck yow tamit lan mooy sa regard sur le plan musical en ce moment. Ok, personnellement, moi, je n'ai pas parlé directement de, de la musique, mm parce que mhm. le papa l'a dit tout de suite, il y a une différence d'époque. Mm -hmm. Donc, euh, je parlerai plutôt de l'administration. cest à parce qu'à un moment donné, il y beaucoup de choses qui ont changé. Mm -hmm. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait d'être manager de tel ou tel artiste. Mhm. Mais il y a la qualité qui est là. Mhm. Et je pense que c'est la forme qui ne se pose pas. cest à a un problème de, euh, de direction et on a un problème de parce que s'il s'agit de talent on en a à euh, vraiment mhm. il y en a mhm. il y a ah. des talents qui sont là mhm. et je pense que ce qui c'est c'est ils ont ils ont besoin d'être euh, d'avoir d'avoir un repère ils n'ont pas de repère en fait donc et ça je pense que il n'y a que les grands musiciens. C'est quoi exactement? vous appelez repère Avoir une direction musicale. D'accord, une Voilà, c'est très important pour un artiste d'avoir ce, que, ce, ce dont Dieu t'a donné, avec ce que tu as suivre ce yon pour être quelqu'un dedans. D'accord. C'est très important. D'accord. C'est-à-dire, là, si on parle d'un tel ou tel artiste, mm -hmm. il y a une vision générale de la musique. Mm -hmm. Mais il y a une vision aussi particulière, carrément, de dire que tel artiste a suivi son chemin et il a créé sa voix wala foofu la na ba am yoonam. Mhm. et c'est très important le le papa sànq mu ngi ko doon wax hors antenne. Mhm. c'est c'est ça devient de plus en plus difficile. parce que moom nee na y' a vraiment du talent et te dëgg la wax. y' a la qualité qui est là y' a du talent au Sénégal. y' a la qualité mais mais la forme et l'administration aujourd'hui mm-hmm. nouvelle génération bi ñëw yëpp. Wally Seck wala Pape Diouf ñooy seen repère. Mm-hmm. musique bi ñoom bi ñuy def. parce que sénégalais en fait dafa bëgg lu yomb bu gisee nit def dara mu dox rek moom du jéem a xalaat jéem a ne baal ma liggéey man xool li ma bëgg ak li ma mën ma mettre ko en avant day gis ne Wally Seck li lay def mu ngi dox rek bàyyi ma ñoo def li Wally Seck di def <laughs> mais est-ce que yéen ñii ñi nga xam ne ñoo yor seen studio est-ce que am na ay jeunes talents yu ñëw ne la non man musique Wally Seck laa bëgg nga defaral wala musique est-ce que yéen a ngi koy mais mais Rakhou est de bonne guerre ah. man propose rien de mieux. li nga seen muy dox mooy dem. moo tax nag euh, le euh, mooy pour appuyer un peu li Papis wax. nekk exemple tey jii euh, gouvernement wala ONG wala. n'importe quel support wala wala ku ci doon ku bëggoon jàppale Daba Seydi day jàpp ne Daba dafa war génne produit non daba dafa am carrière daba daba dafa am loo xam ne avant CD avant musique avant arrangement sax loolu dafa war a nekk sur place tey jii euh, ñun nii tey malheureusement avec nos faibles moyens nous sommes euh, euh les personnes chargées normal de faire cette parenthèse entre les deux tey jii boo bu ma amee jeune talent boo xam ne dafa réer si parole mhm. réer si orientation culturelle bu ma gisee daba ne ko woy cosaanu Louga laa bëgg ah. daf ma koy tegal. Mhm. ma gis grand ne ko euh, euh, boy bi il a des allan pop rock il a des allants mhm. jazz yi. Mhm. mais dafa naan mais way écoute wala kii lii la nañ def lii defal lii na def lii. donc ñun ñoo mën a def liaison bi. mais liaison parenthèse boobu aussi boo koy def. avec tes moyens propres. c'est-à-dire depuis des années on investit dans des studios on en fait profiter lu bari nag parce que une masse parce que y a une mutation bu bu nekk di am il faut ñuy produire ay artistes mm-hmm. que ce soit des bons ou des mauvais il faut qu'on puisse donner leur chance mm-hmm. parce que conservatoire bu am doole bu mën a def formation yi mënu fi nekk mm-hmm. il faut mu am benn Papis Konaté boo xam ne dina trouver malgré le manque de euh, jotam ak euh, ay difficultés temps au moins mettre ko sur les chemins nga xam ne dina ko mën a jàppale mais loolu yëpp boo ko xoolee c'est faible par rapport ak fi jamono yi toll nii seetaan YouTube gis benn concert u euh, euh, euh, nigérien mhm. mu dof loo ko jël loo ko la tête mu xëy suba dem wut benn bitam commencé teg ko ci te xam naa ne que les les nigériens li ñuy produire c'est leur musique ethnique ah, c'est la musique yoruba dëgg la voilà parce que man je l'ai ci américain ñoom seen musique la ñuy liggéey seen musique la ñuy liggéey donc ñàkk repère mooy tax nga xëy suba mhm. on a sama rakku rappeur yi sama rakku rappeur yi ñu ñefe ko wut seen couleur gaal seen machin chose nangam sangam mais après à la suite ban euh, euh, support la ñu am dañuy mujje dañuy patauger donc léegi nag c'est devenu plus grave traditionnel beeg yëpp mooy màbb si nag wutali soi-disant am na musique folk euh, musique acoustique jaar na fi temps yële yàggul <laughs> alors ils savaient même pas que xamuñu woon ne la musique acoustique existait depuis Sahel de Grand uh-huh. une guitare sèche une voix Ismaël Lô mhm. donc mu mel ni loolu lu bees kon ñooñu dañu amul vraiment à mon avis. waaw waaw ñun nag ñi war a def parenthèse bi. problème boobu fan la jógee man j'ai l'impression que aussi comme li ñuy wax médias yi c'est important. Mm. encore une fois mm. damay lancer benn appel parce que malheureusement il ne reste pas beaucoup de temps. Mm. il faut que médias yi. di def émission yu mel nii. man dama gis ne ne nouvelle génération bi dañoo manqué information. xale bu dugg studio rek danaan nuxumbu quoi te musique dafa am norme artiste da nga am statut man damay ñaan télévision sénégalaise yi bu ñu bëggee suñu musique dox nañuy def ay émissions yi mel nii ay hebdomadaire wala ay émissions yoo xam ne ne mensuel lay nekk animateur yi di ci wax di woon nit ñi ñu ci waxtaan ni lamb amee place sport am place musique da ci war a am place ñuy jàngal xale yi di ci yeete mu am benn culture boo xam ne dañ koy yokk ci suñu musique malheureusement aujourd'hui on n'aura pas beaucoup de temps Daba Seye mm-hmm. yow jigéen na mm-hmm. xam nañ ne musique ak jigéen dafa metti mm-hmm. yow tey ji en tant que jigéen est-ce que am na avantage ci am na ci avantage kay parce que bi ma yàlla defee ma nekk woykat rek am baat <laughs> laa ci am avantage bu mag donc man li ma sama sama côté Papis Ndiaye wax na ko léegi euh, xam nga boo amul foo wéeru lu dul yaakaar yàlla mm-hmm. di dem ak say propre moyen mm-hmm. donc du yomb dafay metti du yomb te léegi xamatuñu xàmmetuñu ku mën mm-hmm. léegi da ngay def pour nekk fi def comme ni ñu tuddee waaw euh, woy sa ay nit. Mm-hmm. parce que woy sa ay nit ak topp sa carrière. Mm-hmm. mooy tax nga gis sa avantage yow. Mm-hmm. dafa am solo man yàlla suñu borom rek laa àndal sama borom kër. tout le maa ngi ci sama liggéey. dëgg la maa ngi nekk si doo nekk ci album six titres mais man ngeen baal ma ku mel ni Daba Seye ak talent bi mu am ak voix bi mu am. ak physique bi mu am pourquoi Daba Seye bokkul ci. les les les divas de la musique sénégalaise bi nga xam ne tey jii war nañ ko mën a reconnaître talent muy jouer muy fees parce que elle a du voix elle a du talent est-ce que le Sénégal a besoin du talent et la voix parce que kii am na expérience ci musique. Aziz Sa wax na la ko léegi nee na repère amatul. repère amatul amatul. ñu réer. wax dañu réer. dañu réer. kon daal léegi daal buzz bi lañu soxla. waaw buzz et plus et grand grand wax na ko sànq. Mhm. Euh, euh, euh, mu ngi koy wax hors antenne sànq. waaw. Dakar lenn moo nekk di fi jeex. te yaa ngi wax Dabasé. man gis naa ba tàyyi ñoo xam ne bi Dabasé la ñu wër suñ ko namee dëggantaan fan lañ koy fekk. waaw c'est un problème c'est un problème léegi day obligé daba day obligé comme ni mu la ko waxee dem jouer leen sax un truc même privé. Mhm. dina fa jógee mhm. moom dina fa jógee ak tuuti. récit comme on dit. mais baaxul si structure bu moom manqué daf koy tëj. d'accord amul benn structure amul fenn fu exprimer wu. lay wax dara nag gis nga loolu mooy tax comme artiste bu mel ni Daba Seye dafay préférer di def événement. Mhm. parce que événement. année bu nekk nga def benn anniversaire dëgg parce que événement bu ma ko defee. Mhm. am na ñoo xam ne mhm. parce que xam naa ne. am ma fan su mhm. xale. samay fan sa ay kilifa lañu. donc damay def événement boo xamante ni su ma ko defee dinañ ma fekk si fi nga xamante ni kilifa ñoo fay ñëw. d'accord te lu am solo la. xam nga dafa am solo tamit nga am nga xam sa bopp. xam sa bopp mooy du ma wootentu ay wootentu yu ndaw. damay def événement bu mag. ñi ma war a seetaan ñëw toog ñëw seetaan si la Daba Seye parce que xam na ne woy lan fay lan fay dégg. d'accord est-ce que aussi ñi yor média yi ak site internet yi. buzzuñu ñi nga xam ne ne ñoom ñoo soxla buzz bi pour ñu mën leen jox monde mën leen pousse est-ce que musique bi tamit loolu gënu ko wàccee c'est-à-dire ku mel ni Daba Seye gars yi dañu ah, Daba Seye daal xam nga ñoom dañuy soxla artiste boo xam ne. gars yi du euh, euh, surtout si li gën a grave woykat yu ndaw yi. waaw ko fan moom. waaw fan ko bëgg niroog moom bëgg toll fi mu toll ndeysaan waaw duñ ko gis fen ah. dañuy découragé waaw dañuy découragé dañuy obligé. waaw ëlbatiku nag si site internet yi ngay wax. waaw beneen danger bi. def lenn loo xam ne bii dañ dañuy dem ba posé wu question ne mais est ce que. Uh-huh. man bu ma toppee ligne Daba Seye wala ma topp. Kumba uh-huh. euh, la wala ma topp est ce que man je vais d' accord te fekk ne yow c' est le système suñ jaaree si danger beneen danger bi may wax. mooy les sites internet nag boobu moo gën a extraordinaire. ca Papis lu grave Daba Seye dafay woy samedi. Uh-huh. dimanche. mercredi vendredi. bëri na ay kilifa yoo xam ne. Ah, dañuy soxla daba privé. privé ci ci yu yu doy. ci caché bu wóor. d'accord parce que du moom rek mooy jug. d'accord xam ne statut bi mu nekk. d'accord xam na léegi lan mooy musique dafa dem ba. comprendre ni marché bi di doxee. boo soxlawul dabasay ci boîte bi. Mhm. mais ku la mën a fay fay sa boîte mi ngi soxla dabasay feneen. te obligé di fay dabasay. te obligé dabasay di ci tedd di jouer loo xamante ni ki jouer ci boîte du ko jouer. d' accord très bien léegi dañuy boucler léegi dañuy boucler c' est à dire yan mhm. lan ngeen di wax sénégale yi nga xam ne jamono jii ñu ngi leen di seetaan ngeen yaakaar ne bu doon ko waxee dinañ ko jàpp muy lu positif. ci musique ñun nekk si plateau bi on a je crois que ni ma jàngate mhm. euh, on a besoin. Mhm. on a sérieusement besoin de structure. Mhm. ñu ñuy jàllale. on a besoin de de structure yoo xam ne dañuy appuyer liggéey bi ñu def. ñun si volet création bi lañ nekk. Euh, ku mel ni Daba ak yeneen artistes yi ñuy wax noonu ñooñu. ak ñëpp ak ba si waali ñi ba si ñi ñi gën a confirmer on a tous besoin de mooy li Aziza wax aussi pour ma tënk repère. cest à tey jii foo xam ne bii da ne ah, d'accord fii kat bu ma fi jaaree financement mën na ma fi fekk parce que waxuma financement gouvernement sax financement extérieur sax mën na fekk sur la culture parce que euh, sénégalais la sax pour war naa mën a taxawal Sénégal représenté bu fu nekk donc outil yooyu lañ soxla jamono ji très bien yooyu lañ soxla et pour ñun ñëpp nag je crois voilà yow parfaitement donc ñoom ñëpp wax nañ ko rek. Mhm. mooy lu ñu wax rek. souvent mais yow foog nga ñëwaat yow Papis foog ngeen ñëwaat. <laughs> yow les gens les gens dañuy ah. les gens sortent un produit juste pour exister. Mhm. c'est dommage. c'est-à-dire juste pour être là. pour être là pas pour am qualité bi war. Hmm, wala repère bi war ba ne lii may jëral pour avoir benn euh, maison de disque wala benn festival wala quelque chose comme ça ils sortent un produit. pour le buzz juste pour être là. pour être là très bien. Papis Papis euh, li ñu war wax bari na. Papis waaw bari na mais bon gis nga tey moom temps bi dafa. mais bon man li may wax rek euh, je pense que y a pas beaucoup d'émissions yoo xam ne hmm. tey. yu artistes yi war a mën a ñu dajale au moins xam nga 2S euh, par exemple mm-hmm. Mm-hmm. amoon na ay émissions yu fi doon daw mm-hmm. yoo xam ne dañ vraiment samedi dafa doon am invité yu bëri yi dañuy fees dell y avait presque ay une dizaine d' artistes yoo xam ne ñëpp dañ leen di woo xam nga mais léegi jamono ji léegi c'est compliqué ci ci tale yi parce que artistes yi bon ci invitation day difficile. Mm-hmm. y' a pas les moyens xam dañuy bëgg mm-hmm. ñu fay leen. d' accord après télé yi mm-hmm. dañ dem ba découragé. d' accord bon de préférence léegi yeneen label yi ñoom ñooy euh, nekk ci télé yi nga xam ne peut-être. ñoom ñoo ñoom ñoom nañu liggéeyal. bon def promotion seulement yooyu. yooyu seen artiste label. d' accord mais yeneen label yi duñ ci yeneen. artistes yi ci jaar. xam nga tout ça c' est des c' est yoo xam ne. Euh, pour wane. Mhm. artistes yi. d'accord donc Daba Seye mën na génne benn album ba pare. Mhm. te Euh, kenn du gis album bi fu ñu koy jaayee voilà loolu yëpp dinañ ci waxtaan papi voilà loolu loolu yëpp c'est ah, euh, donc on va on va boucler d'abord mhm. euh, dañuy boucler mhm. xam naa ne foog ngeen ñëwaat parce que man damaa feebar maa ngi toog mais maa ngi loxo parce que li ñu bëgg wax ñu <laughs> toog maa ngi non caaxaanuma damay wax ñuy seetaan on a tellement de choses à se dire aujourd'hui malheureusement le temps nous a capté mhm. désolé encore di wax désolé à nos téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seetaan. Mm-hmm. parce que kii soxla naa ko foog ñu wax ñu musique ak Wally Seck comme que moom moo koy ménager ñu xool est-ce que millions yi mu ngi dugg wala duggul. ah parce que nee nañu Wally moo fi nekk. Papis merci. Mm, merci ah, vraiment merci, merci Aziza merci Papis. kon merci merci Soda la diva. man j'aime ta musique t'as une voix que je kiffe. merci beaucoup t'as du talent et puis j'aime la personne. non elle est extra elle est extra merci beaucoup merci grand. merci je vous aime merci à vous tous. On vous dit à samedi prochain dans l'émission Ludem Show. 100% Galsen revient dimanche prochain. Merci à vous tous. Ciao.